Lat Diop moom mujj naa fanaan guddeem ki njëkk démb ca kaso loolu moom lu leer la ndax mi ngi woon ci loxoy enquêteurs yi sénégalais yi xam ko Assane mhm. li ñu koy toppee nag mooy euh, jël alalu réew mi ak euh, daal blanchiment d'argent maanaam seetal xaalis bu taq bu setul yooyu yëpp nag buñ ko tegee ci kaw mag yeneen ak yeneen daal Lat Diop euh, daal juge bi nee na ko demal kaso nga toog xaar ma mhm. en attendant ñuy lijjanti sa dossier waaw Lat de xam nga yoon moom ñoom ñoo jàng yoon ñoo xam lii yoon ñoom ñooy doxal yoon ñoom ñoo xam si nan lañ war a mën a def ba def teg Lat Diop si yoon bu dee lu mu jël mu indi bu dee lu mu jëlut ñoo xam ne jëlut bu dee bu dee bu dee mais bu fekkee dafa am koo xamante ni moom moo ko tuumaal moom Lat Diop daal di génn réew mi ba pare tuumaal ko. kat moo génn réew mi. ki ko tuumaal. génn réew mi nekku fi ma nga bitim réew fa la ko tuumaale. waaw ah waaw. ñu arrêté Lat Diop des experts fa la ko waaw foofu la ko tuumaale yoon arrêté Lat Diop Lat Diop it weddi ñu ni waa ji yow yaa ko tuumaal kaay fii Sénégal ngeen taxaw yéen ñaar ngeen jàkkaarloo waa ji convoqué nañ ko bay ñëwagul. Mhm. tax fooguma mu ñëw. Mhm. léegi nag bu dee mbirum mbirum waajeeg Lat Diop kese bu dee wa mbirum waajob Lat ak waa kese la bu dee leneen bokku ca ñun dañuy ñaan ñu bàyyi Lat Diop mu dem këram toog ba waa ji ñëw. bu waa ji ñëwee ñu boole leen inkat leen bu dee ko jar ñu doog leen boole ñoom ñaar dugal si kaso bi wala ñu boole leen ñoom ñaar libéré mais nag daw dem bitim réew yónnee say message def say kii pelante wala boole te ñime woo ci réew mi layoo ko day doy waar te waa jooju xamoon na nee naa la woon keroog ak lu mën a xew na ñëw. ba ma hmm. naan na ñëw xam ma ne woon daw na. kon nag ñu ngi koy ñaan mu ñëw. dafa daw. dafa dem bitim réew lañu wax. ah daw na nga wax. da nga ne xam dafa daw. waaw de ñoom kii maam bay ñaa ngi dafa jàng te dañ naan daa daw waaw non li nga ne comme dafa daw dem rek dem xam nga dem moom bu la neexee booy dem da ngay dox wala nga daw dem dafa dem bitim réew ñu ngi koy ñaan mu ñëwaat bu ñëwee jàkkaarloog askan wi wax leen li xew na def conférence de presse dem wuy ji yoon waa ji loolu lañ koy ñaan gis nga ni da ngay am grandir am fulla am fayda boo jëlee nga jël see responsabilités nga def conférence de presse leeral li nga xamante ni loolu la Lat job def ak li nga def Lat Diop nga leeral ko askan ba nga xam ko boo noppee nga dem si yoon nga jàkkaarlu Lat Diop nga won ko preuve boo noppee nga jëlaat si avion dem wala nga dem si kaso bi mhm. joxe hélas mais yow keroog da ngaa bañoon da ngaa bañoon nit buñ ñu convoqué waat ki ci des hmm? da nga ne moom bu ñëwee nañ lijjanti lim kii rek keroog bañoon lii maanaam boole ñaari nit di leen ñuy layoo da ko bañoon eh, man kay saa bu ma masaan dégg Lat Diop ku ko njëkk def Kër Masaar dama nañ woo waa ji ñu ne nañ waa hmm. man li ma d'accord mooy képp ku tuumaal nit war a ñëw toog mu toog nga won ko enquêteur bi xool xam na luy dëgg loolu moo jaadu. Hmm. waa ji moom am nga am na xabaar ni nekku fi. waaw d'accord macha allah. Ndiogou Lat de kon mbiram bu dee daa dugg instruction comme ni ko Assane waxee mën naa bañ yomb ndax bu dee lu ñuy wëri la waaye nag comme li ma jaaxal moom nee na waa ji nekku fi. Hmm. da ko dafa toog bitim réew pelante ko ñu jàpp Lat Diop moom nag néewu fi. Mhm. waaw. waaw mais waa ji nekku fi mais ay kii yoo ma ngi fi ah li mu li mu teg. ay avocat non li li mu teg ci taabal ja. ay preuve ay këyitam a nga ci kii bu ñëwee it mënta ñëw rek lu dul ne preuve joxe na ay preuve mhm. ki nga xam ni moom la woo kañ moom moo war a euh, dindi tuuma ca yëf peut-être la nga xam ni moom la wax convaincre enquêteur yi mhm. parce que su fekkonte ni convaincre na enquêteurs yi mën na dellu këram wala ñu ne nañ xaar waaye bu fekkente ni bii man damaa indi loo xamante ni leer na nañ enquêteurs yi vérifié jaar fi ñu ko war a jaar xool ne lii moom d'abord moom kii ñu teg amut tontu yu mu ci mën a tontu dana xaarani loolu rek la xam nga saa saay ñun dañuy dem ak ay sentiment hmm. ba tax na sunu réew yi pour régler fi dara sax day xaw a compliqué day xaw a jafe maanaam sénégalais moo la mën a mer léegi c'est parce que ne jël nañ nàngam ñu ne ñii de nañ leen sanctionné mais da ngay gisaat ñeneen wëlbatiku maanaam mel ni bu fekkee ne nee nañ nit ki téye nañ ko yeneen sentiment bëgg a judduwaat yoo xamante ni bi te xamuñu ni gravité bi nga xamante ni bi moom la jël alalu réew mën a causer parce que jël alalu réew son bi li ci garaaw mooy tey su ma jëlee alalul réew mi jël naa ko mais maanaam peut-être yàq naa lu baree bari ci réew mi. Mm-hmm. loo xamante ne bi tey bu ñu ko tegoon ci balance dinañ ne kii kat bu ko kenn yërëmati comprendre. Mm-hmm. loolu la jël alalu réew di signifier parce que tey jël ñi jël alalu réew mi ñoo indi xale yi tey loolu démb yaa ngi may partagé benn gaal. Mm-hmm. boo xamante ne bi ña ca nekk gis nga. mais loolu li ko sabab rek mooy njiit ñuy jël alalu réew ma moo indi problème yooyu. Mhm. parce que fu fekkonte ni bii defuñu ko ñu jël alal ji di ko def ci réew mi yooyu yëpp du am jël alalu réew moo waral inondation yi ngay gis jafe-jafe yi ngay gis nit ñi di génn ci seen kër ay njiit yu ñu teg lañ ñu natt ne lii la ñuy jël pour def ko fii ñu lekk ko. Mhm. yooyu mooy ki jigéen ñi nga xamante ne bi ñu ngi wasin di faatu wala amuñu moyen ambulance bu leen yóbbu. yooyu yëpp jël alalu réew mi route yi nga xam ne baaxut accident yi di metti mooy ay autorités yoo xamante ni ñu ngi jël alalu réew xam ni jël alalu réew musiba bu am ca réew ma mhm. ci nga comprendre nga mhm. kon donc il faut que sénégalais yi def loolu ci seen bopp mhm. pour ñu xam ni alalum réew kenn waru koo laal yaa ngi dégg bu ñu la joxee ñaar fukki dërëm ne la son bu ñaar fukki dërëm yii na dem ca lële na ca dem si bés boo ko lekkee lu xew ca réew ma ca nga parce que affaire yëpp chaîne lay rek yuy kii de si yaa ngi dégg mhm. ak foo mën a ne kon man man képp koo xamante ni kii jël nga alalu réew mi man jàpp naa ni euh, bokk nga ci ñi nga xamante ni bi ci ñi gën a dangereux ci àddina bi nga bokk. mais boo seetloo ak ñoom ak camp bi mu nekk nag. ñoom dañoo weddi loolu ba teg ci suuf nee nañu loolu. du dëgg daa xam waa ji waa ji ku jub la ku baax la waa ji am ngor la. Mhm. dërëmu Sénégal li du ko du du ko yendal fenn. non ngor kenn du ko dugal sax ci lii koo dégg ñu koy tuumaal euh, na ak ngor surtout tu tu tuuma jël xaalis yi mm. non quand même am na ñoo xam ne doo leen ci dégg mukk mais am na ñoo xam ne à l'œil nu maanaam jarul sax ngay xool këyit seen doxalin rek. Mhm. dafa wane ni yaa quelque chose. ñi leen wër comprendre jarul sax ngay def enquête. Mhm. xoolal rek façon biñ train de vie bi ñu doon mëne doxal doxal yi nga xam ne moom la ñuy doxal xoolal loolu rek mhm. nga xam ni tey ji yow tey son yi bu waxuma la enquêteurs yi yow tey bu ñu la waxoon ne la gouvernement Macky sàll bi demal jàpp sàcc yi wóor na yàlla boo jàppee fukki nit bu fekkee ne gars yi enquête nañ kenn di set kenn cay set. waaw dëgg la. maanaam te loolu yow enquête man ku ma jàppaloon fukk. mais xam nga alaaj ma mën a jàpp ba. voilà xam maanaam da gis. àll yi da ngay xam yëf yi koo ne wóolu woo da ngay xam yëf yi. waaw da xam ni kii ak diw mii diw mii diw mii. Mm. nii ñuy doxalee du nii. waaw dëgg que comprendre si c'est que. parce que dañuy xam ne dafa am loo non da ngay xam ne am na yoo xam ne bi jarul enquête. dëgg la jarul ay enquête. dëgg la de ñoo xam ne li ñu mën koy mën ñu ngi ko commencé mën 2012. waaw lañ tàmbalee man li ñuy man te biñ ko mën a deet mooy biñ parti pouvoir bi defatuñ ko ah defatuñ ko kon donc xarit tabaski ren luñ doon mane génnul dara génnul enveloppe kii korité euh, yi génnut màggal yi génnut waaw te manoon loo xamante ni bii ñëpp dañoo yéemoon bañ koy man ci diire fukki at ak ñaari ci lañ man lu ne donc liñ ko li taxoon ñu man koo kii la donc nañ waxante dëgg nag affaire yooyu mooy yi nga xamante ni bi mooy mooy mbir yi il faut que sénégalais yi xam ni mm. euh, am na loo xamante ni bi kenn du ko maslaa parce que boo ko maslaawee ba mu jàll muy juraat lu mel noonu di am d'accord yow Chine kenn dafa ñemee dëdd Chine buñ la buñ la jàppee ay détournement dañ lay rey rey waaw dañ lay rey de. siin waaw rey lañ lay def. kenn du ko ñeme mu ñoo détourné kan mooy détourné kenn xalaatu ko dañ lay rey. très bien. mais da ngay parce que yow daanaka tamit rey ko du nit nga rek képp koo xam ne jàpp nañ la ñu ne diw mi sàcc na alalu réew mi bu considéré ko comme loolu da wax ni booy yëpp di jël gaal yi di dem ñoo leen faat. d'accord ñi jël alalu réew mi. baax na. loolu dana feeñaat ci biir waxtaan wi sax ba ànd ak dogalu borom bi mu ngi noonu ñu ngi nuyu Mariam Faye Sall eh, ku mënoon def social te amatub liggéey yàlla na ko yàlla jàppale fa mu nekk diiraan fukki at ak ñaar soxna si njiitu réew mi yéwén lool te amatub liggéey loolu may may yàlla ak ndimbalu yàlla ak ku yàlla teral macha allah jërëjëf